الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بوكي ني بوك سانت بروم سبحانه وتعالى سير نامو بن بودن ورا جام بودن موم نوني بالو اق نيب تا دي لين بال اق تاي نيام سون بروم سبحانه وتعالى بوكو ني ديغ نيو نيب بوكي سونو خطبه تاي موي انتصار الفرج بعد الشده موي خارني wuññikum yàqare gannaaw bi ay tar-tar amee ci doomu aadama bi wala ci li nga xam ne mooy lim nekke wala li mu yëngutu wala jëmi boppam wala leneen ak leneen nit suñ borom dana ko teg ay jafe-jafe doomu aadama suñ borom dana ko teg ay natt doomu aadama suñ borom dana ko teg ay coono coono yooyu ko suñ borom teg nag xat di wut mën a muñ bisa ñu ñëw yàlla teggil ko coono yeeg tartar yeeg metti yeeg coono yi bokk yi xam ne ne àdduna yàlla bi mu ko sàkkee bind ñu andi ci biir àdduna àdduna kërug nattu la àdduna kërug suñu borom di nattu la jaam bi waaye kërug jëf la kërug jëf la boo xam ne ci la nit ki di amee ëllëgam yàlla tey bind ko ngir nattu jaam bi fan la gëm-gëmam toll ci moom ak ak doxalinam ak jëfelinam moo tax suñu borom di teg doomu aadama ay musiba musiba yooyu mën naa am tawate yaram lay doon wala liggéeyam yàqu wala mu am ay jafe-jafe yoo xam ne moom mi koy dund guddi ak bëccëg yoonante sax kenn xamu ko wala suñ borom subhanahu wa taala ci boppam def ci xaasiram loo xam ne da koy nëxal da koy jax jaxal ba du xam fu mu nekk guddeeg bëccëg loolu lépp nag bokk yi boo amee zalika taqdirul xakimul alim la bu kenn jàpp ne feebar bi nga feebar doomu aadama ma la ko teg sa bopp bi nekk wala sa ndigg wala sa tànk wala lu mu mën a doon jàppal ne zalika taqdirul alimul xakim la doon bu kenn jàpp na tamit ne da daal daan liggéey di doxle sa liggéey doxatul nga jàpp ne doomu aadama moo la ko teg zalika taqdirul xakimul alim la bu kenn jàpp ne tamit la nga mënoon mënatoo ko wala la nga amoon amatoo ko nga jàpp ne doomu aadama moo la ko teg su boobaa nag zalika taqdirul xakimul alim la loolu nag gëm gu wër bu matale moom la jaam bi war a am ci lépp loo xam musiba la mu dal ci kawam mbokk yi ay musiba ak ay tartal ci li ëpp li koy waral mooy ay bàkkaar mooy ay bàkkaar léeg-léeg suñu borom dana teg nit ci métit walla tawat wala ay musiba wala liggéeyam yàq wala nangam ak nangam bàkkaar yu jëf moo tax suñu borom teg loolu ndax ab julli boo xam ne yàlla namm na ëllëg mu texe mu xam ne kii am na ndëng te jullit gu ne ci moom lu mu def su borom ne naa ko mbugal fii laata ñu dem ëllëg kon am na ci loo xam ne yàlla bu koy teg nit ci àdduna bi loola la koy waral mooy ay bàkkaar kon bari na ci yenn coono yi ak yenn métit yi ak yenn tawat yi ak yenn musiba yi suñu borom di ko teg ab jaam bàkkaar bu jaam bi def la benn mu wax lu du dëgg walla mu iñaana moroom julitam walla mu wor wala mu sàcc wala mu njaalo wala mu rëy nit wala yu mel noonu léeg-léeg nga nit la ci coono yi métti ñëpp yërëm ko ca waaye bu xoolaatee boppam seetaat mën naa xam coono yi li ko ko teg lan la gannaaw dogalu borom bi subhanahu wa taala ca loolu nag weesuwu lu dut jëf jum jëf ci dafa wuteeg lu diine ngir mën koo jëf wala muy ab bàkkaar ca bàkkaar boobu nit ki jëf ba yàlla di ko teg coono yooyu wala musiba yooyu ñaar la koy jural be ñaar yi la koy jural benn sarsari adduna yi ak xat-xat yi ak musiba yi ak balaa yi mu jural ko mbooleem lu mu defoon ci lu ñaaw suñu borom tegg ko laata muy saaf wala muy daraja ju ko suñu di yëkkatil ëllëg yowmal qiyaamati akbar ñaar yoon rek mooy waral nattu suñu borom di ko teg jaam bi ma waral sëñ Moussa Ka ne woon nattoo di ker keraanin awliya ku weddi laajal xeeru albiya te bala bala laa a jox ay daraja wala mu lay wóolu léeg-léegi faw mu teg la ay natt loolu nag boo ko seetee rek mbooleem ñi si gis tey jii seen tur ñàkk a fay ba ilaa yawmu diin wala ñu liggéeyal diine loo xam ne du fay mukk boo xoolee seen jaar-jaar ak seen ak fan fan fan nekkoon fan tolloon ba tax seen tur du fay ay nattu ak i coono rek la woon Cheikh Ahmadou Bamba Alaaji Malik Cheikh Ibrahima Niass ak ñeneen ñum ñoom ñoom lan daj si diine ba diine taxaw ba seen tur di fay du fay mukk ci kaw boo ko xoolee ay natt ak i coono ak i tartar rek lay doon loolu moo taxit kon ñaar yooyu lay waral benn mu faral la ay ñaawteef wala mu yëkkatil la ay daraja yoo xam ne bu ëllëgee yomal kaamati suñ borom daloo koy wan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon ñi gën a tar ci doomu aadama yi balaa mooy yonent yi bokk yi buñ xoolee yonent yi yonent bu ci nekk am na jaar-jaar yonent yàlla Nuux am na jaar-jaar yonent yàlla Muusa am na jaar-jaar yonent yàlla Isa am na jaar-jaar dégg nga ba ci yonent bi sallallahu taala am na jaar-jaar kenn ku ci nekk teg nañ la lu métti ngir nag sa sa iman ak sa gëm-gëm yonent bi sallallahu taala alayhi wa yi koro bi muy ñu di ko sànni xeer di ko joor xaañ ko ci jóob dara day tuuru yooyu yëpp ay natt la woon waaye muñ la ko def te bu ko neexoon joo joojeekat ñaan yàlla mu alag ña ko doon def waaye gis ngeen la mujje yow yàlla na nga leen jéggal dan maa xamut loolee nag la ko yàlla natt yooyu ko suñu tegoon moo waral bu àdduna tukki aw turam dafay moom yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam kon ab julit faaw mu ñeme encaissé encaissé kaddu encaissé nattu encaissé feebar encaissé lu mu mën a doon waaye jullit boo xam ne nanguwoo encaissé dara loolu sa jullit dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg des na ab jullit day nangu di encaissé donte ay kaddu sax yu ñuy teg der la encaissé ko rek sa jëf ji ci tegal sa borom teg sa kanam ndax léegi-léegi nit ñi moom wax lu dul dëgg ci yow waaye nag su boobaa jëla yàlla teg sa kanam moo waral yooyu la yàlla di teg mooy moo xam natt wax la wala natt jëf la wala nattu yaram la wala lu ma doon nga muñ ko moo lay yëkkatil ay daraja wala tamit moo ay faral yenn yi nga xam ne euh, ay ñaawteef lay doon yonent yooyu gën a tar métit am sal su mal su mal am sal su mal am sal mooy lan gannaaw yonent yi ñi ca topp mooy ña gën a tar diine ña gën a gëm te topp ak ñi ci topp bokk yi xam ngeen ne yàlla bu tegee nit ki natt mu dëgër lu gëm ko nett ba mën naa gën a de waaye am na lu mu koy jural ëllëg yooyu yëpp yi nag doomu aadama bi da ko war a bàyyi xel moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon inna idama al ma idamil bala ci gën a rëy ak fay ëllëg mooy ci gënoon a tar ay natt ak i coono fii ci àdduna te yàlla su bëggee nit ci tamit da koy teg ay coono di ko teg ak natt ci boppam ko dund gi ñuy dund nag ñun jullit yëpp mun na ñàkk ci ñun yàlla suñu borom subhanahu wa nit nim ñuy tege bis natt bisa ngi ñëw mu teggi loola bisa ngi ñëw mu teggi loola xam nga nee na fa inna ma'al yusra inna ma al usri yusra ñaari maarifa ci aaya bi dañuy wax ne borom xam-xam dañuy wax ne takraaru aaya boo gis suñu borom indi ca ñaari maarifa ñaari maarifa rek maarifa bu njëkk ba day firi bu mujj ba fa inna ma al usri yusran inna ma al usri yusra kon loolu yàlla fu mu teg jafe-jafe rek bisa ngi ñëw mu indi fa jàpp ndal mu waxaan ne sa yajalu llah baada al usri yusra kon ab julit war na am gëm-gëmu ne lu métti di métti coono yi rek war naa am gëm-gëmu ne bis ak ñëw suñu borom subhanahu wa taala teggi loolu yonente bi dal waxaan ne an nasru maa sabri bala laa yàlla jox ndimbalam dëgg dëgg dëgg da ngay nangoo muñ da ngay nangoo muñ amoon nga amatoo commerçant bu mag nga woon ci dëkk bi ku daan jël bagage teew na jël ñu daan jëlee bagage dégg nga alal bari yàlla dénk la ko nga xëy xëy suba alal ja soo gëmul yàlla da koy jiñ da nga koy jiñaatale te nga nit ki bu ko yàlla di yàqal yàlla day gën a xam day gën a day gën a nattu ak ngëmam loo xëy mu dugg rek ubbiku day tëj day gën a tëju bu la yàlla di yàqal foo foo fëgg day dëgër foo fëgg day dëgër su boobaa nag nattul bu la suñu borom bi teg dama xam yow da nga muñ wala doo muñ am nattul ma maa sabri rek lay àndal boo muñee nag bu ëllëgee suñu borom daal di dindi loolu gisoon gis ngeen fi ay commerçant yoo xam ne dañoo mujj yàlla perte waaye dem nañ muñ leen dag nangu dogal bi yàlla bañ koo jiñ doomu aadama ba yàlla xëy yëkkati ci leen nga gis koo xam ne bitigam dafa lakk mu mu dag mu nangu dogal booba ba suñu borom ci waat ko yàlla dana natt jëm ci ay tawat yàlla teg la feebar boo xam ne fi doolu ku la gis yërëm la nga muñ tawat ja yàlla xëy tegg ko dégg nga yàlla teg la natt sa njaboot moo xam dafa leen a faat wala dafa leen a wéradi la wala nangam nangam nga muñ loolu bis suñu borom tegg ko kon an nasru maa sabri ndimbal balaa ñëw rek jàmm bi day nangoo muñ li ko suñu borom teg wal faraju maa al kar wuññi yàqara tamit balaa am yàlla da lay teg ay ay ay yàqara rek ak wuññi ko balaa am ay yàqara day am wa inna maa al usri yusran bokk yi yàlla bi ñu bindee lu mu wax laqad xalaqna al insan fi kabat ay fi masaqatin wa anaain wa balaain wa fitna yàlla daf ñoo bind ci coono moo ko ñun faw ñuy am ay fitna faw ñuy am ay coono faw yenn yi der suñu kaw ma waral gëm jamono jii ku gëmul yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ku gëmul yàlla dëgg dëgg dëgg caal yi te ku gëmul yàlla dëgg dëgg dëgg loolu dal nga ne doom nit jiw ma ko def moo dem ci sëriñ ba moo dem ci njabar ba fii la ko suul fii la ko def nangam nan ànd ak gëm yàlla bu mu sëkk gis nga nit ki yàq ki dox di yàq di yàq moromu doomu aadamam ngir bëgg mu dox wala mu koy jabar wala lu mu mën a doon loola muy def ci kanamam lay këppu këppuwaat muy jigéen muy góor ak ku man a doon muy jigéen muy góor ak ku man a doon donte léegi dafa xew koo dem mu ne dama ci sëñ diw dama ci sëñ nàngam doon na lii man na loolu man na loolu mën na nàngam sëriñ si ne dañ bàyyi xel gis ngeen dañ bàyyi xel de alal ji jigéen di ji ngeen di jox ñu di ko lekk ngir alal ngir yàq doomu aadama wala ngir féewale doomu aadama wala ngir jàqal doomu aadama ak lu mën doon alal jooju riba la alal ji boo jël riba la baaxul te bu ëllëgee des na ko léegi dañuy dégg seen borom subhanahu wa taala kon képp koo xam ne métier moom yaa nga ca na nga ànd nag ragal yàlla ku ma sëkk sa diggante ak sa borom bu xool naa ménager yi bisa ngi ñëw lépp day jeex loolu wax naa loolu wax nga dem mën naa ko day ci boole insha allah ak bu doxee yàlla gis ngeen ci jamono ji ñu toll ji ñu ñu ne woon diwee daan ci làmb ji ñi ci bari waxuñu dëgg kan waxoon mooy daan moom lan daan kon loolu wax nañ ci bàyyi su ko defee nag jaam bi na bàyyi xel ne lépp lu dal ci kawam yàlla moo ko teg yàlla moo ko teg donte am nañu sabab lu bëgg koo yàq wala bëgg koo def nangam ak nangam donte suñ borom ne sëñ tuba waxoon ne inna laa rataba mulku ala asbab sabab yooyu donte dafa am lay am naan da gëm yàlla xam ne bu yàlla nan mu wóol loolu du am wa ma asabana lam yuridu llahu an yaxsa ana wa ma axsa ana lam yuridu llahu an yusibana lépp lu ñu dal yàlla namul loolu may ñu lépp lu ñu may yàlla namul loolu ñu dal dal ñu kon naan da gëm yàlla bu ma tëkk ci toona yi ci métti yi ci balaa yi ci ñàkk gi ci lijjanti gi mu taal lijjantiku ak nangam ak nangam ak nangam te xam ne waxtu rek lay xaar lépp waxtu la ko yàlla wax àggale saa yi waxtu wa jeexee lépp da daal di mën a dem ba war a toujours damay wax ne ñi yàkkamti sax bay dugg ci gaal gi buñ jaaroon suñ ko war a jaar gëm yàlla yàlla mën na leen dimbale bis yàlla mën na leen dimbale bis ñoom ñoom di saa dem tukki bu kenn yàkkamti gis nga la waykat boo xoon fu suñ borom nam nga naan fa guuxum ndox bala ngaa faatu rek da nga faa da nga faa da nga faa naan guuxum ndox law sitta bayna shamay wal ardi mujtahidan fii surbatil maayi duuna risqi lam tajid la waykat ba waxoon boo naawoon asamaan ak suuf ak fenn fu ne nga fay jaabante ci yàlla nam nga naan fa guuxum ndox wallaay doo ko fa naan kon nan delloo si xel yi lii nag ndaw ñee tax may wax ñun ndaw ñi nan delloo si xel yi yàkkamte gi doy na waar lool kenn ku nekk da ngaa bëgg doon millionnaire milliard ak milliard léegi sax kenn ñaan lootul gudd fan ak wér ñaanal ma rek ma am ay million ak milliard nangam nangam ndax bu dikkee da nga ko jariñoo ndax boo ko amee dana gën ci yow kon nanuy ñaan yàlla li gën ci ñun mu di ko def loolu bokk na ci li gën bokk yi musiba ak ci balaa suñu borom nee na danaa leen natt wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' al-khawf min al daa leen nattu ci ragal i noonu ak ak wàññi kuy alal ak i bakkan ak i meññin waaye nag bu boobaa wa basir saabirina alladina ida asaaba musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nit ki lu koy yàlla mën a teg ci kaw suuf nee na inna lillahi wa inna ilayhi rajiun da nga doon lijjanti lijjantiku ne inna lillahi sa mbokk faatu la ne inna lillahi sa alal yàpp la ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yëpp wa ida asaabatul musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon nag nattu bokk yi sunna kaw ni la boo xam ne dafa bokk ci sunna suñu boroom yi ni teg jaam bi te jaam bi war koy muñ kon waaye balaa bu mel noonu nan gëm na dogalu suñu borom subhanahu wa la yàlla nag léeg-léeg mu teg balaa nit wala mu indi balaa ci àdduna bi ngir nit jàngal nit yi ngir mu ràññee lu baax ak lu bon lu baax ak lu bon kon àdduna bi li ngeen gis ci jamono ji ñu toll léeg-léeg nga dégg gis nga Palestine ñii ay jullit lañ ñii du doon nañ ay jullit waaye gis nañ ne ñi xam ne du ay jullit lii lii dañuy def jullit yi yàllaa ko namm gis ngeen suñu réew mi rek politique bu ñaaw bu ban bi ci nekk kenn ku ci nekk am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci ay coono ak i tartan yàllaa ko namm bis mu jeexee kenn mënut a fexe bu tee mu jeex ya loolu la jullit bi di gëm ànd ak borom bi subhanahu wa taala kon fi ni mujjante la mooy la sëñ Tuubaa waxoon te masaalikul jinaan nee na képp ku yàlla jox ak wér wér am ko fii ci àdduna yow man xaaral akbar soo gisee ni yàlla fekkoon ay natto ki coono ak ci wéradi yow ma wérul ci àdduna nga xam ne dara musulaa dal da ngay bëgg jël ay sido di di dagg sa jaaro bi par morsa ngir nga am maqaama ne ni ciy am kon léegi-léegi wéré di baax léegi-léegi wéré di baax ginnaaw ci nga xam ne ak wér moom mus am lu ko dal lu ko métti ci àdduna léegi la nga dégg ci naan sama àdduna dara naqaru ci musuma am lu ma métti ma nangam nangam ñooñee nag sëñ tubaa nee na bu yomal xiyaamee ba sun borom at at nit ñi ñu gis ña yàlla tegoon nag so ak wéri bi ñooñee nga xam ne dañoo dara mosu leen a nekk dañuy bëgg ku jël ay ciseaux dagg seen yàpp yaram mi ngeen ñu am màqama mi koy mi koy am kon nag ñooñee nag muy ñi yàlla tegoon nag yeeg balaa yi fii te nag am na bénéfice boo xam ne ñooñee du ko am mooy lan képp ku yàlla teg natt teg lay coono teg lay musiba teg lay balaa yow ba bokk bokkoo ca àll nga ni feete seen jëf boo léegee sab ban bi laa tax sil rek dañ lay jëkk-jëkk rek yërul la lépp ne la sa waaye doxal baaxul sa àjjanaa nga ne kon nag léegi-léegi nag métti ñu yërëm ci nit lool waaye nag am na foo xam ne bu fa àggee bu boobaa natt jooje dana ko jariñ kon yàlla nu yàlla dafa dégg ak topp yàlla nu yàlla may xolum muñ yàlla nu yàlla may xolum doylu yàlla nu yàlla may xolum ngëm yàlla na suñu borom def suñu xol yi lépp lu ñu dal ñu mën ñu mën koo delloo yàlla te bañ ko bañ a delloo doomu aadama doomu aadama moom li mu tëral dafa bari jàpp na na mën na lépp mais yàlla képp a man kenn ku man amul kur suñu borom mënoo lépp loo waaye defal ñu di ba jàpp na yaa ko defal yaa man yàlla yàllaa la kàttanal ba nga man loolu kon yàlla na am ngëmu xol ba lépp dal suñu kaw ak suñu njaboot ak suñu diin ak lu maa doon ñu delloo ko borom subhanahu wa taala rabbana atina fi dunya hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب وما ذلك على العزيز وكن معيشا لنا من شر ذي حسد مع شر من وشر العين يا الله وشر السهر وشر قلق في مع الجن والزواد يا الله يغفر الله لنا ولكم ولشعر المسلمين امين